mbokki Sénégal ak li ko wër yéen mbokki baykat yi yëngu ci wàllu maraîchage yéen ñi bëgg saa yu ngeen bayee mu jaar yoon yéen ñi bëgg di yëngu ci am mbay noor ak nawet Agrigreen ñëw na ci ay solution ci lépp lu nekkoon seeni jafe-jafe di bay noor ak nawet dafa bokkoon ci li leen jafe lool rax ca dolli lépp li doon yàq seen a mbay muy ngelaw li wala naaj bu tàng bi wala ndox mu bari wala ab sedd wala ay njéeréer ak i gunóor yi yàq gàncax bi Agrigreen indil na leen solution boo xam ne saa yu ngeen bëgg tee bay da ngeen di bay ci anam bu leen neexe mooy tànt yi ngeen di gis xam installé ci sab tool dana la musal ci lépp lu jëm ci luy yàq mbay ñu boole ko système boo xamante ne nii li nga soxla ci am ndox la lay jox li nga soxla ci ngelaw la lay jox li nga soxla ci tàngoor la lay jox climat bi nga soxla moom la lay jox ngir sa gàncax gi rafet lool te mbay mi jaar yoon ma ne yéen ñi bëgg a investir ci wàllu agriculture yéen ñi nga xam ne seeni jafe-jafe moo nekkoon lii yéen ñi nga xam ne gunóor yee climat bee taxoon mënu leen a bay noor ak nawet bu ngeen lëkkaloo ak Atri Green da ngeen di mën di bay 12 mois sur 12 24 heures sur 24 te ngelaw du la sonal naaj waxi noppi seddaay waxi noppi gunóor waxi noppi te loo investir da nga ci gis sa njariñ ñu nekk en partenariat ak Food Afrique mu représente leen fii ci Afrique sowu jan dama ne mbokki baykat yi seen njàqare jeex na seen aajo faju na ak Atri Green seen dara dootul jafe ñu sampi foofee ca Inde ñu mën leen a woo ci plus 91 99 74 91 74 14 ak Atri Green ak banqaas bii di Food Afrique di leen teewal ci Afrique sowu jant ku amati ay jafe-jafe ci wàllu mbay dalaa neex ndax solution ngi nii mbokk yi bi ma nekkee kaso euh, def naa grève de la faim lu nekk nag dégg naa ko ndaxte kaso am na télé ah ku yaakaar ne xam naa dafa amoon ñoo xam ne dañoo jàpp ne du ma a génn ku ñu tëj kaso na nga xam ne dina mës a génn waaw lu nekk dégg naa ko may toog noppi rek di seetaan di reetaan lu nekk dégg naa ko ñun ñun ñii toog fii ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo am ngànt ñëwuñu dañoo bëgg Sénégal bëgg joo xam ne dañoo bëgg Afrique bëgg joo xam ne même buñ ñuy noot même buñ ñuy dóor di ñu buntu xatal di ñu def taatu neen ñu ngi xeex ngir ñi nga xam ne ñoo ñuy def taatu neen ñu ngi xeex ngir ñi nga xam ne ñoo ñuy buntu xatal dama dugg Cap Manuel ñu ne téléphone mais unité 100 francs c'est pas possible te ñëpp xam nañ ne téléphone yi prisonniers yi di utiliser ay Illimix lañ siy dugal. Nous, 60 secondes 100 francs Si vous bu vous sax ñu ne vous nga voilà mais da ngay 10 minutes 10 minutes 1000 francs marchandises yi boutique tous les prix sont surfacturés 100 francs 200 francs 300 francs Ben une omelette Vous ko 50 francs 400 francs ci coronavirus ci j'ai ji prisonnier. week-end liñu mën jot ceeb sinon du lundi au vendredi dara mënul ci yi prisonniers yi sont ay doomu askan ils sont affectés impactés par le coronavirus Je naa jënd 6 bouteilles 1 litre 3 000 feuilles, une feuille blanche 50 francs L'eau, yëpp biir cap manuel mais je suis la directrice Maneko ne ko pas je mënul ma khadi euh mi di nga di nga parce que détenus son man waxuma ne mënuma fay 100 francs unité dé waxuma fay mais li ëpp ci détenus yi Babacar Diop xamna ko ils sont issus des classes populaires des couches populaires nga une omelette à 50 francs pour 400 Une feuille blanche 50 francs c'est grave la minute du téléphone 100 francs Je ne ko pas. nga ko est booy dugg ñu defaat la bon ndeysaan ça jabar dina ma encore L'œil tout doux, ça m'a ngeen jéggal ma tout doux, sama m'a tatouage, pas pour moi. Pas pour moi, Je suis désolé. Ce n'est pas de gaieté de cœur que j'en parle. nga dugg ñu ne la ma defal taatu neen ñu simmi la ba nga set man ne mais ça c'est un traitement inhumain et dégradant pas parce que man nga man ngeen kay def même ay nit yu am 71 ans on leur a fait ça man ne leen mais yeen, bu nekkoon sen bay di ngeen ko def ñu ne ma déedéet ba paré, ñu jël say bagage di ko ci suuf nga ceinture ñu sommes ko ci Nous avons indi calpe ñu sommes ko ci ceinture yoo xam day bees des ñun ñëpp xam nañ ne du dem ci bi mais calpe nous xam day bees ñun ñëpp xam du dem ci donc nous jëm ñu ngi le Cap Manuel ci jamono mi képp kuy dugg ngay d'abord donc c'est pour quarantaine man ñu ma ci maximum 50 personnes Il jël y en avait 150. bi ma fa y en avait près de 200. chambre une c'est la chambre la plus peuplée du Cap Manuel chambre 1, chambre 2, chambre 3. man waxuma ne nañ ma dugal ci beneen chambre mais sama dugg bi lu tax mu am solo mooy sama yeneen dugg yépp kenn mais dama dugg chambre boo xam ne dañ ma pakataas pakataas mooy dañ leen di boole nii comme ay sardine nii ngay tëddee nii ngay tëddee toute l'année nii nii ngay tëddee toute l'année nii ngay def maanaam yow mënoo tëdd nii mënoo sur le dos mënoo tëdd sur le ventre de profil ngay tëdd waa ji sës yow mu am ay borom ne def nii jël seen di pousse pour que bu mu am espace parce que si ñu ko defulee pas, du donc nous ma ñu ma mandat de dépôt mais vendredi Le lundi tasse. mais lundi soir nous pas paquetage tasse. Je ndax que ngeen wax ji Nous pas un tasse pour nous faire. mais lundi soir c'était impossible de faire du paquetas. on était 150 Là, nous avons sur les 150 nous avons 40 yi Nous avons ñi waaw en rang da ngay toog ni accroupi keneen sës sës ci sa awra toog def en fil ndaxte kenn mënutul def ni donc accroupi en rang comme ça ma ne ko mais Badiane Khady la directrice en fait de la prison yow nekkuloo directrice maison d'arrêt et de correction mais directrice maison des esclaves nga ma ne ko même ci gaalu même ci gaalu négrier yi mais nit yi dañ doon tëdd nii sax mané ko lolou di soppi ben di nga téléphone bi ñaar di nga wañu boutique bi trois di ngeen bayyi chambre une chambre deux ni ngeen koy quatre euh, quatre moy dugg bi bagage sax lay wax alors li am mardi matin xamna moy bi ngeen yégué nouvelle nous étions trois à entamer la grève de la faim mais grève de la faim bi li la Guy ne dafa bëgg ñu traité ko en prisonnier particulier déet lii rek la woon lii rek la woon bàjjan xani bañ ñu jël ma ne ma la loi sera appliquée dans toute sa rigueur ñu dugal ma ci cellule boo xam ne un mètre de large 3 mètres de long 3 mètres de hauteur amul lampe amul dara d'accord da ngay dugg rek chaise bi mooy chaise anglaise enfin pas chaise anglaise mais non pas la chaise truc mais l'autre chaise bon l'autre chaise d'accord mais vous comprenez les ma Nous sommes tous ñu sommes ñu nous ma ma sommes mu sama short sommes ne nous caleçon ci non nous sommes ils m'ont mis dans une chambre infecte pour saleté Nous tilim tous les duggee ci chambre il def 57 heures mais les la woon de c'était ces revendications là. Mais si yokk leneen boutique bi prix yi ñu boutique les gardes pénitentiaires prix même les gardes pénitentiaires ses collègues étaient opprimés ils achetaient au même prix que les détenus donc ma def grève de la faim gars yi ñëw saraxu ñaan le directeur euh, de l'administration pénitentiaire colonel Bokandé ñëw fa alxames je crois bu dee mu ñëw ñaan ma ne ma Guy Marius dama lay ñaan ñaanatuma la sax en tant que directeur de l'administration pénitentiaire mais en en tant que mag ak ba bëgg nga bàyyi grève de la femme, bi ma ne ko déet bàjjan xaj lu mu nekkee ci kaso bi du dëgg du yoon mu ngi noot jéelmaan yi te jéelmaan du mala jéelmaan du mala un prisonnier a des droits mais le même jour le téléphone est passé de 100 francs l'unité à 60 francs l'unité mais de 400 francs économie est-ce que pour moi, tous les prix nous avons ko ba mu prix en fait l'extérieur C'est pour moi. mais c'est pour wax ak tamit Djelman, yi ma fa citoyens sénégalais Il faut que ci Sénégal da ngay injustice nee naa leen naa injustice bés buñ ma suulee ci souf naa injustice. loolu dal la bàyyi la bàyyi euh, Cap Manuel et dégg naa ne Badjan Xadi jëlee nañ fa. elle a été elle a été relevée de ses fonctions. je ne suis pas fier ou content pour elle parce que loolu taxuma won jóg mais content pour détenir les fa tant que sommes sénégalais pareil wuñu pour nous nous sommes nous am dara dañu la prison nous sommes yenn les sax ñuy jënd ay nekk waaw ngay directeur pour chambre ou wala chambre fait fekk la majorité des détenus nous ngi torox nga nous noppi di seetaan waaw yow ñu lay indil prison, nous sommes di jënd ci boutique bi ba nous boutique nous pas de dentifrice Le lu am ci boutique bi xaalis boutique bi fu jëm ci directeur donc moi, je profite de l'occasion pour dire ak sant ki nga xam ne colonel Bokandé parce que il a fallu faire une grève de la faim de 50 ans pour que les droits des détenus soient respectés suñu militantisme militantisme carcéral ci le bokk mbokk yi bu ñu kaso Babacar Diop doon défé rebeus niko ñenen ñeneen il faut qu'on soit des militants carcéraux militant carcéral moy. ko xamné ne la dugalee kaso da ngay faté sa bop ni nga doon faté sa bop ba nga dugg kaso nonu ngay faté sa bop pour intérêt général ñi nek ci kaso ba ma ngi gërëm di sante colonel Bokande ah di wax ne président Macky Sall war na dem école colonel Bokandé. ay ministre ak i yi di loubal alalu Sénégal pour ñu doon affecté wala relevé képp ku sàcc mais on aurait fait des bons importants Le président Macky Sall ku qu'il mu defal la promotion ku luubal mu defal la en fait promotion ku toje mu du mais mu la promotion Bon dénoncé mu tëj la donc ngeen xam ne kon loolu moo xewoon biir Cap Manuel deuxième grève de la fin... bi mais commencé vous parce que on est

waaw ñu dajeeg waa m 2 ne leen ngir yàlla seen marche samedi bi bu leen ko def teg leen ci suuf ah ñun itam dañoo kilifa ñun dañoom am kilifa meluñu ni ñi nga xam ne dañ leen wax bu leen jàpp Karim ñu jàpp Karim meluñu ni Macky Sall mi nga xam ne dañ ko ne bul jàpp Khalifa sàll parce que IGE waxu la ko mu jàpp ñun dañoom am kilifa suñu kilifa ay kilifa diine lañu suñu kilifa mu ngi tudd askan wi moo tax tamit. ñu teg lépp ci suuf mais lundi boobu grève ñu de la faim ñu ne on va donner une chance à la médiation médiation bi nag commencé na jur ay ay ay kii ay ay kii voilà donc lii la bëggoon wax euh, mbokk yi bon du ma mun wax lépp nag et euh, je ne sais pas ndax euh, Mamadou Diouf Mamadou Diouf waxoon na ko mais bon question yi dañ koy leb ba beneen yoon d'accord dañ koy leb ba beneen yoon sinon qu'on euh, jouer. je crois qu'on aura l'occasion de se revoir pour faire des questions mais je tenais quand même Bougonna, l'air, ci Sénégal ak li ko wër yéen mbokki baykat yi yëngu ci wàllu maraîchage yéen ñi bëgg saa yu ngeen bayee mu jaar yoon yéen ñi bëgg di yëngu ci am mbay noor ak nawet Agri Green ñëw na ci ay solution ci lépp lu nekkoon seen i jafe-jafe di bay noor ak nawet dafa bokkoon ci li leen jafe lool rax ca dolli lépp li doon yàq seen a mbay muy ngelaw li wala naaj bu tàng bi wala ndox mu bari wala ab sedd wala ay njéeréer ak i gunóor yi yàq gàncax bi Agri Green indil na leen solution boo xam ne saa yu ngeen bëggatee bay da ngeen di ci anam bu mu leen neexe mooy tente di gis nga xam ne ko installé ci sab tool dana la musal ci lépp lu jëm ci luy yàq mbay ñu boole ko système boo xamante ne nii li nga soxla ci am ndox la lay jox li nga soxla ci ngelaw la lay jox li nga soxla ci tàngoor la lay jox climat bi nga soxla moom la lay jox ngir sa gàncax gi rafet lool te mbay mi jaar yoon ma ne yéen ñi bëgg a investir ci wàllu agriculture yéen ñi nga xam ne seeni jafe-jafe moo nekkoon lii yéen ñi nga xam ne gunóor yee climat bee taxoon mënu leen a bay noor ak nawet bu ngeen lëkkaloo ak Atri Green da ngeen di mën di bay 12 mois sur 12 24 heures sur 24 te ngelaw du la sonal naaj waxi noppi seddaay waxi noppi gunóor waxi noppi te loo investir da ci gis sa njariñ ñu nekk en partenariat ak Food Afrique mu représenté leen fii ci Afrique sowu jan dama ne mbokki baykat yi seen njàqare jeex na seen aajo faju na ak Atri Green seen dara dootul jafe ñu sampi foofee ca Inde ñu mën leen a woo ci plus 91 99 74 91 74 14 ak Atri Green ak banqaas bii di Food Afrique di leen teewal ci Afrique sowu jant ku amati ay jafe-jafe ci wàllu mbay dalaa neex ndax solution ngi nii mbokk yi